Thank you. yow buntu bi yow foog ñu foog ko. waaw ñun ñu suñu yoon roi des arènes yi seen. ñu seet ko. solo yu kii bi nga faa roi des arènes yi sida nee ko sida sida sida nee ko mu préparé ñu ñëw si kawam.

Yéen a ngi ko topp cortège bi Jaajëf. Ada Lop. Ada Gong. Eh, Galo. Eh, Galo. Galo, guys. Eh, eh, Moussa, tu voilà. Merci, Moussa. Galo Ada gi. Le jeune lutteur, euh, le phénomène, l'avenir de la lutte sénégalaise. Ada Fass, il est là. Ada Gong. Ibrahima, il est là. Ada Ngom vraiment dévoué et de la Ligue sénégalaise daanaan bi personne avec Ada Fass Ada Ngom ma ngi noonu ànd ak ay comme ay xaritam ak ay almijaano Ada Ngom bi weex na tàll kii lay waxal Babacar maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay delloo ziar. ci loolu ne na jàmm. ñu ngi sant ana waa Fass. ñu ngi fa di ziar bu baax. mais Babacar combat ba jotagul. waaw mais lamb jee ko laaj. ah jee laaj lii nii combat bi ak atlétique bi. waaw ah, lamb jee ko laaj ki ñuy bëre laaj ko. ah waaw. adversaire bi moo toll na daal. non dañ la comme euh, da ngeen di lamb si. père père gi yàlla dañu may tudd si yéen ñoom yéen ñi ngeen naan la. waaw waaw noonu la waaw avancé la na ngeen avancé bam na amaay photo Gala waaje ngi bis waaji ngi bis Gala waaje ngi bis xorom la non xorom la xorom la xorom la. bii xanaa mooy xorom xorom bu mokk bi. xorom bu sumba jun la bu sumba jun ba la. bala. Arafaas ba ngi noonu. Arafaas ngi noonu. Arafaas wax. Kan meloo bi meloo bi meloo bi xool xool waaw non non Adama Adama oto bi la Ada nekk escorté ah voilà soxna Sary ay ultra Ada Fass la ok ultra Paris amee noonu la ultra Ada Fass amee. ndeysaan supporters yi ndeysaan waa ultra Ada Fass la kon ñoom daal soo la ultra Ada mais dama ko ñoom daal ci dégg-dégg daal ñoo doon accompagner Ada Fass ñoom ñoom lu mënti xew duñ bàyyi Ada maanaam ñoom daal ñooy ñooy sës ñoom. comme les marrons. nekk fi na la. mbokk yi oto bi daa weex daal la ko waroon a jàpp. milliard amul sax dañuy ñaan suñu borom rek ah. dañuy di ñaan. incha allah waaw waaw. bu ne def sa liggéey a ma mayante lay doon rek. boppam borom tërën. waaw maa ngi lay ziar. fatal ma foofu tuuti waay. fatal ma foofu tuuti waay. kaw léegi yëpp jarul. yàlla yàlla arrêté.

Ada gok kalau ya apa sih? Kalau kamera saya, kamera. waaw waaw ah, da ngay génn fii génn fii Bamba Bosse Ay waaw si yaakaar naa ko Modou Modou Modou waa grand yi yëpp si nañ ngi ne si côté droite bi di xaar day xaar ba ndaanaan du dugg Ada Fass a ngi noonu di waajal ay Sadio Mané ñeme nara dal Ada Fass gaaw màcc sa galang dégg ngeen leen gone yaa ngay way waa Grand Yoff vacciné Ada Fass bisi naa rek oh bisi naa rek dara. bisi naa rek dara. dara du xew. xale yi lamb ji seen bëgg. aar mobil la bilaay walaay gis naa rek. ay ay jar ko lu mu ñàkk la parce que yàlla la ada gi ëpp muy ëpp muy wàcc galo wàcc ada gi wàcc maa ngi koy ada mu wàcc xale la xamul dara galo l'expérience face à la jeunesse Tambouras. waxuñu la nga jàkkaarloo mbër yi jàkkaarloo fële. waxuñu waa Fass ak non mënoo jéggi mënoo jéggi kenn mënoo jéggi. mënoo jéggi su benn 5 millions 10 000. bu kenn jéggi. Fall dawal sa liggéey ma def sama liggéey nga ràmm may ma loolu. booy ma xaarib léegi xam nga dañuy def benn deux semaines pour nga mën a am espace quoi mën a dugg. waaw il faut cinq yi waaw mën na cinq personnes yi. sa waay nee na trop. def leen nii arrière leen arrière leen arrière leen arrière

na ne yaatu. dañuy wax mais bàyyi ko mu yaatu. may leen ko may leen ko mu yaatu. waaw waaw waaw. def leen def leen def leen yaatu. may leen ko. waaw waaw. Ada caaxaane wul combat bi mbokk yeneen tuuti. Ada caaxaane wul combat bi. jàpp leen si rek. Ada caaxaane wul combat bi. dëgg la. xam na fu mu ko nar a yóbbu. waaw waaw. nga de waaw waaw. Ba Ndeye Birame faral ñu ko ah. mbay ak foofu ak foofu boy bu ndaw bi ñëwal boy bu ndaw bi leer rek a tamra signal tamra kii ngeen mën a xool waaye kii bi d'accord moo koy yor maa gis deren xool wala 15 janvier passé battal mais combat bi say combat yi daaw da nga def ñetti combat yoo xam ne yëpp dafa baax macha allah bii mën na noo xalaat mu gaaw ne da ngay jóg nag lay wax yaay borom arène nationale inshallah ani braza dégg la yaay aada Ndakaaru sax yaay aada Fass non eh, eh yaay aada borom Fass yaay aada borom Fass ci amateur boy no asalem Fass yëpp kilifa kilifa kilifa diine nekk Sénégal yëpp maa ngi leen taalal sama loxo. mais mais am na ñoo xam ne nañ ma fan yi aada dañ ko gis ci internet bi bëri na tiktok beeg yooyu. aada lëluwul looy wax ci loolu. baabu la 15 janvier. ci la ñu xam ne lëluwul. sëñ Assec borom ndigal waa Caraba ñëpp waaw talaloo ah, ah, kilifa yi nekk Sénégal yëpp baa jóg Patar lu ma bëgg du lii li nga bëgg du lii si kanam si kanam raw li bët xale bu ndaw laa fa ma teg sama bët dafa sori waa Grand Yoff loo leen di wax xale bu ndaw laa fa ma teg sama bët dafa sori looy wax waa Grand Yoff loolu olof la xale bu ndaw laa fa ma teg sama bët fa nga teg sa micro waaw ne ba nga bëri téere dégg de maa ngi toog Ada kan mooy mag maa ngi woo ñëpp. Ada kan mooy mag mi. maa koy duma maa koy daal. bilaay gaay bilaay gaay Paul Diorgo tamit xam ne mi ngi pare. kon ñaari jeunes yu am avenir lañ quoi. boo doon maytuloo Ada Fass benn nga koy maytuloo. non man xam nga Ada Fass du ko këpp sama yalwaan. ah wax nga dëgg. préparé naa Colifay 2. waaw indi ko. ñu entraîné ko ni ñu ko war a entraîné mais Ada Fass ci bëre la ko daane. booy bi damay gis combat yi daan yëpp. xeex bi du bëri ci bëri la lay daane ci calcul franchement booy bi am na am na am na am na charisme mu làmb quoi te dafa am ay ay ñu ma xam ñu nekk ci ginnaaw ay kilifa ci góorgóorlu rek mën na am dara mais gis yow xam nga bu baax ndax yàgg nga faas yàgg nga dugg faas xale bi di préparé ki nga xamante ne jàlko mu def retouram daan ñaari mbër benn mbër bi njëkk a daan sa gox la dëkk muy ma jol keneen ki muy mbay guy bi tey lan nga ñuy wax ci jàlko bu dee mbay du aada faas lan la koy meesal xam nga Ada Fass Zarko Zarko Ada Fass dèjà derby la dèjà te demagul fenn gis nga li fi xew ni yaa ko gis xam nga mais Zarko day mbër moo xamante ni moom toujours euh, corox corox lay bëri day ñëw arbitre na pour mu xeex ak yow doo jàpp sa gañu kon franchement li ñu ñaan rek mooy yàlla na leen yàlla defal jàmm quoi Zarko boo xoolal Zarko xoolal na fee Zarko Zarko Zarko gi ruubee Zarko gi yëngal xoolal Zarko laa ilaaha illallaah nee na Zarko noonu def Zarko lu mu indi Zarko boobu Zarko boobu Zarko boobu Zarko ñëw na Zarko ma da ngeen di dal na ngeen jéew ne. waaw waaye kooku Serigne la le grand reporter déwén naa bu ñu toog soob soob sax dañuy tëgg seen ndey fii ñun ñoo ko moom ñu ndey seen ku ñu ko ñu tepp sa lëfal eh ku fi joxul ndey jaraaf dañuy dagg sandaay voilà loolu la déggee nag dara ñu ko ñoxal eh ñun jaraaf lañ ndey dëkk eh suñu lamb eh eh dañu lamb jaaxaan de ça va yii góobuñu sax voilà loolu la déggee nag non séeréer lañ voilà. ñu ñu ñu ñu Brasile, brasile. Brasile. ak fulla ak fayda. ñëw jàpp Ada Fass tër ko yaa ngi dégg da nga koy tër. tër waaw tër tër. ah parce que dañu la tër. Ada Fass du am dara. yaa wax lii non du am tuus. parce que du am dara. mu ngi kaw ndam la gën a. da ngay xool doole la ñu ko bëri kii xale la de. ñoo xam ñoo xam doole ñoo xam daa ko bëri. Ada lu mu nekk xale xale xale xale loolu problème. Zarko maa ngi liggéey la. bilaay walaay xale bu yaru. yaa ngi dégg man daw laa damay daje damay dalanteeg moom muy métti mënalu ma ko dara. waaw maa ngi koy liggéey loolu ko. xamal la gën a onze. gën a onze waaw. ara tapet la ara tapet la seen mbër bi musul musul ngi nii da ñu ruube lañ ci gars yi bi mbokk yéen maas ni galo ah jam daw na Zarko daw na Zarko ngay dem dugg na xale mbër ngeen Zarko da ngay rax sànni ba léegi Zarko dugg na asane Zarko waay yow amul ndey dugg mooy waay kàddu li nga ni moom mooy génn xeex xeex moom mooy génn xeex xeex Ada pas. mbokk yi yéen a ko gisandoo. Zarko Zarko Ngok Zarko Ngok Zarko Ngok xale yàq nañ lamb ji xale yàq lamb ji

républicain républicain bakkan sa bakkan bi soxna si bu ko fàtte bàyyi leen mu dugg xoolal bàyyi mu dugg ñu moo dana ci yow Wow. fattanam ba gis injustice yow nga dëgg maa woo sama waay mais loolu déglu ñu xam nga yow mën nga wax Zarko maa ngi koy xam nga mën nga wax mën nga wax déglu ma déglu ma ñëw ñu jël ñu assuré ko waaw waxal pare comprendre mais warul topp booy di dem fa topp booy chef déglu ma chef da ngay déglu ma wax expliqué la xam nga dama ne ani ki ànd ak ma jël cinq ticket cinq ticket waaw Zarko di dugg booy ko mbaxane mais kan moo tooñ waaw waxuma ku tooñ mais lu ñu toppee booy non këf mbaxanaam Sakko du ragalam Sakko du ragalam ñu këf mbaxanaam mu taxaw di xool ba pare ay magum jëm taxaw fii ne Sakko moo indi lépp ay magum jëm te ñëpp gis seen bët mu taxaw fii ne Sakko moo toll. Sakko bu duggul fii kenn ki moom la def daal kay kay bi kaw kay bi kaw ba ma ko joxe Sakko da Sakko da ko mbaxanaam dañ ko tooñ ka ñam ka ñam Thank you. Sëriñ Bamba bu ñu jëlu si moom dara yàlla naa leen aw far force calme-toi calme-toi. champion nga booy bu ndaw bi baax booy bu ndaw bi dégg nga booy bu ndaw bi bu mu tax bu mu yàq sa way. booy bu ndaw bi booy bu ndaw bi bu mu yàq sa way. s'il vous plaît teel sa calme teel sa calme. champion nga booy bi day mel ni booy bi il a fait quelque chose booy bi il n'a rien fait il n'a rien fait booy mi ngi ci biir mi ngi ci jàmm. ñeneen la ñu joteel kon bul wax booy bi. bu ko sax dugal voilà léegi supporteru booy bi. supporteru booy bi bu ñu yàq sa way. bés bi sa bés la bés bi sa bés la yaa ngi toog fan laay mën na fi gaañu gaañu ah boo ah, xam ne garaawul nga lii moo ma daloon moo ma daloon ah, jam samay boy yu bëri ah loolu nag je le ferai plus dootuma ko defati ci àddina voilà am la la ñaan ñaan la ñaan nga wax ma ñan nga àndal nga ñëw ñu dugg si biir toog pas plateau bu ñu dugg si biir toog affaire bi set man la rek laa lay ñaan ñu dugg si biir toog pas plateau bi tukkal rek tukkal si biir voilà tukkal si biir ay ca Xaadim Bamba gis nga Zarko gi doon Zarko war dégg nga loolu Zarko en colère nee na biir mënul dugg. waaye li jënd leen loolu. mën naa mën naa génn ñëpp garaawul garaawul. ama noo dugg rek noo dugg rek dugg si biir rek quoi ah maa ngi jàpp. c'est vrai. jàllale sama jàllale. ça defal na. chef. Fallou Fallou ñoo ànd ñoo ànd man kenn du ma sacrifié kenn du ma sacrifié ngeen sàkk si yow la. si si si si parce que nit mënul taxaw doo doon ba bagage ba pare jox ko seen nit ku dul taxaw dóor bu baax a baax ñu ko def nit ku dul ñëw comme sama taxaw taw bi taxaw dama seetaan. Thank you. ba xam ne man la ñu seqat daaw ak moom. kooku nañu dugal. yaa ilaaha illallah waa Fass yi fu ñu jëm ak Zarko waa Fass fu ñu jëm ak Zarko sàcc nañ drapeau daw ko am na am na waaw Galo am na lu wolof di wax de copet la ko gone gi def daaw am na lu wolof di wax de ah lu gone mbaxana du fekkee coono borom ah bii moom supporter di leen attaqué contrat loolu wóorul Zarko bul fàtte dem ci rek moo nekk ci moom Zarko ragalul dara galo ay lamb ji bari nga jur jàmm yaa te te coono gaay yi di ba seen armas ñu ngi taxaw fii ma ñëw ni kay yéen mu ne armas waruñ fee taxaw yaa ma dégg seen i taxawee di waxante gaay si la benn booy yoo nekk ñëw pour mën a dem yaa ngi dégg sori ko jàmm la woote bu bu daray coow bu la wootee daray coow nit ñi mobilisé waa Grand Yoff ñëpp ñëw mobilisé wu benn coow sori ko ñaar rek la na bi ñu yëg atoom kon kon jàmm la woote waa nit ki boo xam ne dafa ànd ak bët woore si ay ay ñoom ay mais fii la bi ci na rafet la gise dana day jeex na rafet waay li bi doon non waaye pompe à ma dóor gis nga gars yi dañuy wax rek wante mbër mbër mu këf sa gàllaaj bu ne sa sa dara si yow di nga jéem a nanu waxante dëgg bu fekkee gëm na seen bopp ñoom ñoom seere seen bopp seere seen àndandoo wante mooy loolu ñu dana yomb a laam laam yombalum ko de. li bi calmé woon la waa Jede woon na suñu joo mbaka ma ka jàppoon mot taxaar ndeyam.